waa presque bi man la Abdou Samad Joxaane bokk ci Pastef Dakar doon coordonnateur Pastef Fann Point E Amitié ginnaaw bi ñu leen sante yéen waa taskatu xibaar yi ci seen teewaay di leen fàttali nit seen liggéey bu baax bi ngeen di liggéey bu leen kenn defi te bu leen kenn jéem boole kenn ci li ñuy def ci réseaux sociaux yi di créer ay compte yu bon di ko askanale opposition bi ngir jéemee jaxase ñu nga yéen ndax li leen ñor muy réew mi moo ñu ñor li leen ñor mooy équilibre bi moo ñu ñor ci loolu dañ leen di xamal ne lundi ba la génn fukk ak juróom-ñeenti xale dëkk Dakar ak juróom-ñett fële sa Bignona état Sénégal dañ dañ leen séquestré jàpp leen ci lu tegul ci yoon xañ leen seen i àq ak bu weesoo dimanche bi weesu coordinateur Pastef Dakar suñu jigéen Fatim demoon fële ca ngir yóbbu ay ay yére ak xale yi nga xam ne leen fa téye dig fekk leen fa jël leen ci doole yóbbu leen téye leen bés te waxuñu leen lu tax ñu téye leen fa ginnaaw loolu ñu bàyyi soxna Fatou waaye Abbas Fall di coordinateur Pastef Dakar bokk ci copil ba tey mu ngi ñu téye foofu téye boobu nag teguwul ci lenn da waxuñu ko lu tax ñu téye ko démb ñun ñëpp gisandoo nañu soxna Birame Souleye Diop di administrateur parti Pastef doon liggéey yi bàyyi njabootam bokkul Pastef politikul ñu fekk ko fa muy liggéey noot ko jaay ko doole yóbbu ko di boobu ba tey mu ngi foofu dem ba tey ñu xañ ko njabootam yore njaboot ju sew ñu ne ko doo fi jóge te waxuñu ko lu tax ñu koy toog loolu nag xoxotal la xoxotal boobu nag newul lu bees fii depuis bi ma fi saa Sall nekkee 2012 ba tey ndax moo fi toog ne képp ku jàmbar la moom am xalaat bu wuteeg moom dana fexe ba dootoo waxati loolu nag mu ngi koy doxe di xamal askan wi ne doxal boobu su antoo jëm ci opposition bi su ci noppee ci presse bi la jëm mooy tubaab bi naan musulman ndax moom jàpp na ne xalaatam ba ka rafet gis-gisam ba rafet mu jot nag ñu artu kilifa yi di artu mbootaayu droit de l'homme yi ñi xeex ak ak yelleef nit ñi ñu wax ci di artu ñi nga xam ne ñoo fekk nekk ci bitim réew ñu wax ci ndax tag ku artuwul li nga artu ndaxte li ñuy ñaan Macky Sall ak procureur bi nga xam ne new fi lu dul bëgg-bëgg président Macky Sall lay doxe te bëgg-bëgg askan yi nga tax ñu koy fay doxewu ko jëfewu ndax gannaaw bi ñu jéemee teg ñaawteef di diaboliser président Ousmane Sonko nga xam ne depuis 2000 di set ba tey ñu ngi ci ñu jël lu ñàkk fayda jéem ko koo takkal dem ba ci biir ñu ñëpp ñu seetlu ko bés bu ne ñuy wane ne takkal boobu ab nar rek la ak sos kese lépp di wàcc lépp di daanu ña ko naroon ñu bàyyi leen ñuy dox ña ko doon jéem ñu bàyyi leen ñuy dox ka jël si woon xale bu jigéen ba di Sidi Mouhamed mbay di jarbaat ci Maodo Malick Mbaye bokk APR bokk benn Bokk Yaakaar ak médecin bi nga xam ne moom la àngaloon ak avocat bi nga xam ne moo bindoon loolu ba tey jii nii kenn terewu leen ñuy dox kenn dégluwu leen ci mbir mi ñu jom mi xamuñu nu ñuy def xëy na dañuy dem assemblée xëy na dañuy def assemblée ne ko yëkkatil malaanu kiir laay ki nga xam ne x la mooy ku ñu xamul ba pare wax ci suuf ne Ousmane Sonko loolu yëpp di ay di ay naxa sa xandang di ay yëfu yoo xam ne wax ku daal di nga xam taxaw kon ñañu waroon topp xam nañ leen waaye jéemuñu ko ñu xam ne loolu askan wi xam nañu ndax askan wi seen xel seen gis-gis ci réew bi léegi ñëpp la leer ñu xam ne loolu taxawul ñu ne kon nañu soppi loolu jéem wut ay pexe naan dañuy jéem a daaneel yëg dañuy jéem a insurrection dañuy jéem a kii te ci constitution Sénégal dafa ne ku ne ci ñun am nga droit mobiliser wu ku ne ci ñun am nga droit résister suñu ne tegee loo xam ne attanoo kon ñi ñi woowaat réew mi di woowaat ndaw Pastef les patriotes di exiger ñu bàyyi xale yooyu ñi bàyyi suñu coordonnateur Abass Fall ndax fa mu ne du place am fa mu ne mooy xamal askan wi réew mi naka lañ koy war a yore ñu bàyyi soxna jàmbur bi nga xam ne tam soxla nañ ko ñu ngi exiger justice bi procureur Bassirou Gueye ñu ngi koy exiger mu bàyyi leen te di woo ñëpp ñu taxaw jonn népp benn say ngir xeex li nga xam ne du yoon te teguñu ko fenn. te ñu taxaw wane suñu bopp Pastef Dakar ak FRAPP Dakar ñu ngi woote waat di artuwaat ndax fa ñu jëm fa ñu jëm du neex wasalaam. emprisonné injustement le régime liberticide de Macky Sall procède à des arrestations arbitraires, ce qu'on peut appeler une chasse à l'homme. C'est pourquoi des nouvelles arrestations ont été faites, dont celle de Abbas Fall, coordonnateur de PASTEF Dakar, membre du COPIL. Il a été arrêté devant la prison de Cap-Manuel, accompagné de notre sœur Fatima Beng, membre de FRAP. Ils étaient là pour aller assister les prisonniers, les otages, leur amenant de quoi se nourrir et de se vêtir. Ils ont été arrêtés, manu militari,